riba def cee bari lool alal joo xam ne daal dafa jaal ci wàllu riba mooy koo xam ne dafa gént di lekk yàpp mbaam xuux lu baree bari eh, ba tey koo xam ne danga gént mbaam xuux di la dàqee ba noppi nga yëg ne mbaam xuux bu mujjee naa soppaliku nit loolu day tegtalee nit seytaane koo xam ne mu ngi lay pexeel wala di la bëgg a yàqal di ko jaaree ci beneen atam boo xam ne séentuwoo ko kon mbaam xuux di la dàq soppaliku nit loolu nitu shaytaan yi ñoo koy def pour yàqal nit ki wala indil la ay jafe-jafe eh, koo xam nag da nga gént di rey mbaam xuux di ko fees loolu it day tegtale nit koo xam ne wërsëgam dana yaatu lool waaye li ëpp ci wàllu alalam fa muy jugee du nekk loo xam ne lu dagan lay doon mooy gént rey mbaam xuux ba noppi di ko fees moo tax ni côté boobu gënut ba tey it koo xam ne da nga gént di togg yàpp mbaam xuux moo xam jigéen wala góor danay wane ne dangay nekk ci mbir yoo xam ne ala ne xaal lu ci ëpp ci ay xat-xat wala ay jafe-jafe wala alal joo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo te moo tax eh, gént yàpp mbaam ci anam yu baree bari nekkul loo xam ne gën na kon yàpp mbaam xuux daganut baaxut moo tax lu ci ëpp ci wàllu géntam gént yu safaanu lay teg te alal ju xaraam wala alal ju daganut wala alal joo xam ne fa mu jógee yàlla gërëmu ko ala kulli xaalin ba tey gént gis ay mbaam day tegtal ay xat-xat ay xat-xat yu méttee métti mooy gént gis mbaam day waral ay xat-xat ci nit ki ba tey eh, gént ay mbaam yu bari wër la danay war ni eh, yaa ngi ci anam boo xam ne anam bu naqar yàlla wala anam boo xam ne nekkul la yàlla gërëm subhaanahu wa taala ba it koo xam ne danga gént gis mbaam yu baree baree bari saa boo tëddee dangay gént gis mbooloo mbaam day wane ni nit kooku noonu alaakulli xaalin ay bàkkaaram bari na wala ay bàkkaaram mujjee naa jéggi dayo jéggi dayo koo xam ne bu góor wu tuub dëgg rek mën naa nekk ci ay xat-xat wala mën naa nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne ci diggante moom ak boromam nekkul loo xam ne gën na mooy gént di gis ay mbooloom mbaam yu bëree bëri alaakulli xaalin kon gént mbaam nekkul loo xam ne gën na nekkul loo xam ne luy tegtal la yiw la nekkul loo xam day tegtale wàllu yokkute lu ci ëpp bu dee alal alal ju daganut lay doon alal ju xaram alal joo xam ne nekkul yàlla gërëm kon soo fekkee koo xam nag dangay waaj a dugg ci place nga gént gis fa mbaam xuux dañ lay xamal ne place boobu baaxut place la boo xam ne yàlla nekkul loo xam ne daganal na ko wala la ami nekkul xam ne yàlla sunu borom subhaanahu wa taala gërëm lay doon moom tamit danay nekk nit koo xam ne. gént mbaam xuux day tegtal tukki bu jafe wala tukki buy bari ay gàllankoor wala tukki boo xam ne danay nekk ay xat-xat wala ay jafe-jafe eh, am na ci benn benn ci nit ñi nag fu géntee gis mbaam xuux buñ xëyee dañuy gis mbaam xuux ndax ñoom yàlla suñu borom daf leen wan waaye li ëpp ci nit ñi diñ koy géntee demeewut noonu ay benn benn nañ koy géntee ci neneen lay doon kon gént mbaam xuux tamit nga dégg ko muy yuux wala muy jooy ci gént lool it day tegtale xibaar yu naqari wala mbir yoo xam ne saa bu ñëwee du nekk lu gënal borom moo tax côté boobu tamit ala xaalin loolu lay tegtal incha allah rabbi kon eh, yi ay takk-takk la wala ay tegtal la yu am solo yoo xam yu mat bàyyi xel la lu aju ci wàllu gént mbaam xuux moo xam da gént di lekk yàpp mbaam moo xam da ngaa yore mbaam xuux moo xam da gént nekk ci biir mbaam xuux bu dee koo xam ne nag dangay gént war mbaam xuux loolu dinay tegtale not wala yàlla di la womatal koo xam ne du jullit ba noppi mu lay déggal lool sax mooy gént war mbaam xuux ba tey it mm, gént nag mbaam xuux war la lool it <laughs> day tegtal nit koo xam ne ab yéeféer dana ko not wala nit koo xam ne dana nekk ci biiru yéeféer ba yéeféer yi mën ko demin eh, ba gént mbaam xuux war la dana tegtal nit koo xam ne bu dee jullit la balaa yàgg wala bu góor góorgóorlu tuuti mën naa ñàkk ak njulitam wala jullit goo xam ne mën naa nekk ci mën naa génn ci ak njullitam ba tey jullit boo xam ne foo ko fekk day lekk yàpp mbaam xuux danay tegtale koo xam ne mën naa tubbi tubbi nag mooy nekkoon jullit ba ci yàgg génn ko nekk leen lu dul jullit loolu tamit da koy tegtale incha allahu rabbi kon moo tax euh, li ëpp ci wàllu gént mbaam xuux nekkut lu gën ci gént ndax gént la goo xam ne lu ci ëpp lu xaraam ak lu daganut ak loo xam ne ay tolof tolof ak ay jafe-jafe la wala ay gàllankoor yoo xam ne day bëri lum koy tegtale kon ala kulli xaalin lii mooy tegtal yu am solo yu mat a bàyyi xel muy lu aju ci wàllu gént mbaxu kon numéro yi mooy 78 443 75 27 ñi nga xam dañoo bëgg firi gént wala seet wala listixaar incha allah rabbi ñu ngi ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne moo am jàmm yàlla yàlla defal ñu jàmm defal leen ko di wax ما استطعتم وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk jullit yi déglu leen ma ma xibaar leen xibaar bu am solo nag ci kii nga xam ne dafay saafara jafe-jafe askan wi di leen taxawu ci fànn yi nga xam ne noonu lañ ko bëggee mi ngi nii nag képp koo xam ne am na yitte ci li nu lim man nga dal di jokkoo moom incha allah déglu ma mbokk mi ku bëgg ñu firil la sa gént wala seet wala listixaar waxal sa soxla ku am problème mu hémorroïde nag wala ndoxum siti loolu moom ak may la ko ci sunu borom bi defal muy hémorroïde ak ndoxum siti loolu moom dafa am lu ko bi defal muy may nii képp koo xam ne jokkoo ak moom da nga ci xam dara wala nga jëflanteeg moom wala ku bëgg a xam sa sarax jokkool ak moom wala ku am problème mu am doom jokkool ak moom wala ku am faru rab itam na nga fexe ba jokkoo ak moom loolu itam ak may la ko ci sunu borom bi defal wala wàllu kàttan képp koo xam ne da nga néew kàttan itam jokkool ak moom ci numéro bii ñuy bëgg a joxe ku bëgg bayre jaaro xaalis wala kaaraange adresse bi benn rek la muy géejewaay ci pharmacie PIA bi mën ngeen a jokkoo ak moom ci numéro bii bu ngeen ko bëggee jot incha allah muy 78 443 75 27 78 443 75 27 kon mbokk yi lii nga xam ne lim nañ ko fi lépp incha allah bu ngeen jokkoo moom dana leen ci indil ay saafara ci ni ngeen ko bëggee comme ni ñu ko waxee rek ku bëgg a firi gént wala seet wala listixaar waxal sa soxla rek wala ku am problème mu hémorroïde surtout nag hémorroïde wala ndoxum siti loolu moom ak may la ci am goo xam ne suñu borom moo ko ci jagleel wala sarax wala ku am problème mu am doom wala ku am faru rab wala koo xam ne nii dafa néew kàttan man ku bëgg bayre jaaro xaalis wala kaaraange adresse bi benn rek la muy géejawaay ci pharmacie PI bi jano ak furu Madeleine bi jokkoo leen ak moom ci numéro bii ñu joxe nag mooy 78 443 75 27 78 443 75 27 mbokk yi kii kat dafa ñëw ngir saafara leen seeni jafe-jafe kon nag jokkoo leen ak moom ci numéro bi muy 78 443 75.